ko bu ko defee yëfi maa tey yi nga xam ne rek moom la ñu nekkee ci kaw tali bi bay faat bakkanu doomu aadama yi mën koo dakkal enquête yëglekaay ne accident yi nga xam ne rek saay su nekk ñu ngi koy nemmeeku ci kaw tali bi muy faat ay bakkani doomi aadama jomaay ma ngay sàkku ñu daal di càmbar teg ci ay mesures yoo am solo yoo xam ne rek daa daañu ko dakkal ci nu mu gën a gaawee Sud Quotidien ne lu jëm ci accident yi nga xam ne rek mooy am ci kaw tali bi ni ñu war a def ba aar forêt beeg littoral bi kii di président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay jox ay ordre gouvernement bu Sénégal Walf Quotidien xëyee tey ji ci dogal yi bàyyeekoo démb ci ndajam conseil des ministres bi ñu doon amal yéenekaay bi ne ONAS dàq nañu nag kii di docteur Cheikh Dieng mi ko jiite woon ñetti weer ginnaaw bi ñu ko tabbee Vox Populi ne ko jaaram ca direction générale bu ONAS nag dafa mel ne ab morne ndax ginnaaw bi ko njiitu mi tabbee ñetti weer rek ci bopp direction boobee nag moom docteur Cheikh Dieng dàq nañu ko niki démb daal di fay teg kii di Seyni Dieng dip ingénieur hydrogéologue yéenekaay bi dellu siwaat li nga xam ne rek moo soxal bu ñuy tudd ko jiite di yi foofee la dàq gi jógee yéene kaay bi ne démb moom moomee di docteur Cheikh Dieng nag ma nga woon ca diwaan bu Touba doon saytu nag ni ñu war a def rek ba daal di jëlee ndox yi nga xam ne rek moo taa ca dëkk boobee ginnaaw gi ca lañ ko dàq tribune yëglekaay na ñetti weer képp la defagum ca bopp ONAS waaye moom docteur Cheikh Dieng Ousmane Sonko dàq na ko ginnaaw ab njuumte goo xam ne rek defoon na ko ci saint mu soxal ab projet d'assainissement boo xam ne rek toll na ci soixante milliards point ak tina dàq nañu ko kay moom docteur Cheikh Dieng mi nga xam ne rek moom lañ fi jiitaloon ca bopp ONAS waral ba yëglekaay cabinet Diomaye Sonko sans état d'âme ab poids bu politique ca banlieue bu ndakaaru nag ñu daal di koy sanctionné ginnaaw ab projet d'assainissement bu toll ci juróom benn fukki milliards moo waralug dàqam yéenekaay bi di samp laaj ne ndax du dafa am dil bu am ci diggante Cheikh Dieng ak kii di Mamour Diallo mi mu wutu ca bopp ONAS lu mu ci mënti doon yër leen boobee yëglekaay leen fa yëglekaay ne mooy ki ñu njëkk a dàq ci nguurug Diomaye Faye kii di Seyni Dieng moo ko wutu ci bopp direction bi nu mel mu di ab boo xam ne rek démb la wadd ci conseil bi ñu doon amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi ñu weesu ca bopp ONAS mu dib expert en environnement yéene kaay bi ne moom docteur Cheikh Dia mooy DG bi nga xam ne rek moo gën a néew ay fan ci nguurug Jamaay Faye source aane ko yéeme na moom docteur Cheikh Dia kay dootu xam fan la audit yooyee mu tàmbali woon ginnaaw départu kii di Mamour Diallo ca bopp ONAS l'observateur ne ko bukki ba màtt na ko moom daal mooy DG bi ñu njëkk a dàq ci nguurug Jamaay Faye des ba tey ci ndajem conseil des ministres bi ñu doon amal niki démb ginnaaw dàq gi ñu dàq docteur Cheikh Dia yéene kaay bi ay dogal yu yees jëmale ko ci direction générale bu police nationale yéenekaay bi ne maam Seydou Ndour indi na ay yeesal ci bopp police njare seen bu okartis jamono ji mooy directeur général bu sécurité publique Abdoulaye di nouveau directeur de la police de l'air et des frontières Marème Diaw di directrice de la police des étrangers et des titres de voyage Ibrahima Dieng moom ñu daal di koy tabb ca bopp daaf Mamadou Lamine Nia dal di wuutu Idrissa Cissé foofee ca DP Mamadou Diagne ñu dénk ko sécurité permanente du comité interministériel de lutte contre la nomination irrégulière Sud ne ko ay nomination yu bees tax kay démb amal nañ ko ca bopp police nationale libération ne ko direction bu police judiciaire nag ak wàllu sécurité publique commissaire Mamadou Lamine Niang ak Ndiare Sène nag ñoom ñooñee jamono ji ñooy doxal le Témoin moo yëglekaay xëy tey ji àddu jëmale ci audit yi nga xam ne rek moom la waa IGE doon amal ak lu soxal rapport Cour des comptes ak OFNAC yéenekaay bi ne nag léeg tey ñu tàmbalee teg loxo gi foofee di Rebeuss ak Camp Pénal balaa yàgg dara daa ñu tàmbalee dalal ay gan Le Soleil yëglekaay àddu jëmale tey ji nag ci màggal gi ñuy màggal anniversaire u massacre yu tirailleurs sénégalais yi caaroy 44 yéenekaay bi ne ab comité taxawal nañu ko nag élimaanu jëwriñ bu Sénégal mi ngi ko taxawal ci càkkuteefu président de la république Bassirou membre ca war a bokk nag daañ leen fësal ci ayu bés ji ñu jëm professeur Ibrahima Thioub di ab historien nag ma ngay xam ne ni nag waa France dañuy bricoler ab récit mémorial boo xam ne rek dafay fësal malaise bi nga xam ne rek am na ci massacre yi wax ci l'observateur moom ma ngay àddu jëmale tey jii ci wàllu jàng meeg jàngale mi dogal gi nga xam ne rek moom la ci élimaanu jóoriñ bii di Ousmane Sonko jël bokk na ci dakkal ni ñuy teree muraay ci yenn lekkool yi nag loolee nag yëglekaay bi xëy na jox ci kàddu kii di ancien ministre Mamadou Talla ma ngay xam le nag ne lu ni mel bu fekkente ni nguur gi bëgg na koo jëfe daal faaw rek ñu daal di amal ay waxtaan ba noppi bañ caa beddi benn acteur moom Mamadou Talla nag ma ngay fàttaliwaat la xewoon ca Saint Jean d'Arc bu Dakaaru ba noppi nag ma ngay jox ay conseil régime bu yees bi wet ga union nationale bi ëmb association parents d'élèves yi nag ñoom ña ji ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko Abdoulaye Fane di xam le ne boobee mesure nag dañu ko war a appliquer te bañ ko yemale rek ci ay wax enquête yëglekaay xëyee moom it wax ji nga xam ne rek moom la ñii di way politique yi nekkee ci li soxal émigration clandestine bi yéenekaay bi ne dafa mel na ñu nekk ci guddi gi dañu koy politiser ni ko ñu jiite réew mi di amalee jamono ji ñuy nekk ci opposition bi donte ne ay effort nag gouvernement bu Sénégal mu ne mi ngi koy amal waaye lu jëm ci xeexum tukki mu jaarul yoon mi fii ci réew Sénégal nag des na ay défi yu mag yoo xam ne rek war nañ ko cee amal Sall addu jëmale ci les échos mi xëyee tey jii nag ak benn prisonnier boo xam ne rek tey jii dañu ko setal ginnaaw bi ñu ko tëjee ci kaso bi nag moom moomee nag di ab justiciable li mu sàkku rek mooy état bu Sénégal ñu jox koy dàmpaay Aline Badara Koli lay wuyoo fas yéene naa yóbbu dossier bi ca cour suprême moom moomee nag dañu ko tëjoon ci kaso bi ginnaaw bi ñu koy topp ci lu toll ci deux cent trente huit kilogrammes ci wàllu drogue bu ñu jàppee woon ca port addu jëmale ak la xew ca kasob Diourbel benn waay bu am juróom-ñaar fukki at ne moo fa daal di faatu ginnaaw ab yàgg boo xam ne rek moom lañ ko fa tëjoon jeexaleeg wàllu tàggat yaram ak mercato bi nag réew sport ma ngay xam le ni kii di Pierre Antoine Dorival moom jamono ji nag engagé wu na ngir dem ca Olympique Lyonnais mu fekk ci jamono joojee nag kii di la Sarr daal di signé ab contrat ak waa Crystal Palace wax ci lu soxal làmb ji nga xam ne rek moom lañ bëgg a taxawal jamono ji nag ci diggante Ama Baldé ak kii di frank yéenekaay bi ne taxawal nañu ko jamono ji sunu làmb jox kàddu kii di Bécaye Mbaye moom nag ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi ne Franc mën naa affronter Balla Gaye